asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant ku ci nekk fa nga toog fekk naa la fa ne la jàbb loxo maa ngi massawu sénégalais yi ci li nga xamante ni mooy mbas mi di Covid 19 dugg fi lëmbe réew mi di rey suñu yaay yi di rey suñu papa yi di rey suñu maam yi léegi bàyyeetul sax suñu ndaw ñi. mu nekk tiis nekk métit nekk lu diis loo xamante ni yàlla wàcce ne ko suñu kaw di ñaan yàlla mu ñu ko wàcceel mu teggilaat ñu ko ci jàmm ak salaam damay profiter aussi ci occasion bi di jaale képp ki nga xamante ni ñàkk nga ci sa bakkan ak képp koo xamante ni ñàkk nga ci sa mbokk ñëpp ñi ci faatu yàlla yërëm leen xare leen ca aljana ya gën a kawe damay jéggalu aussi la presse sénégalaise parce que j'avais annoncé une conférence de presse mais vu le contexte sanitaire je peux pas vraiment dajale lu tolloog plus de cent ou deux cents journalistes dans une salle pour ko pour jëlee ko fi di profiter aussi di remercier la presse crédible la presse sénégalaise crédible les journalistes yi nga xamante ni ils m'ont appelé depuis hier ils n'ont pas arrêté de m'appeler pour vraiment soutenir pour vraiment encourager et pour vraiment même donner des conseils maa ngi leen di jaajëfal xam ngeen seen bopp yéen ñëpp vous avez été très nombreux alhamdulilahi rabbil alamin damay sant yàlla bu baax a baax a baax ndax je ne suis ni surpris je ne suis aussi ni étonné, je ne suis aussi ni vraiment euh, surpris. Je suis dans l'espace public, n'est qu'un activiste confirmé, n'est que quelqu'un qui défend le droit humain, n'est que quelqu'un qui se bat pour des causes nobles, n'est que quoi ça fait 25 ans, je lutte contre l'injustice, n'est que quoi lépp loo xamante ni wala ñëpp ñi nga xamante ni dañuy bëgg a faava faagaagal wala naxasal réew mi niñ bëgg mu doxee ma taxaw ne di la barrer la route kon je m'attendais à ce jour j'attendais à recevoir des coups c'est pas la première fois comme ils ont l'habitude de le faire alors dama ne woon duma def une vidéo mais il le faut damay commencer d'abord ci wax leen kan mooy Thier ki nga xamante ni moom moo ma filmé en mon insu dans sa voiture les gars Thier c'est quelqu'un boo xamante ni bi ñu xamante ak moom ça date de vingt ans ñu séq façon teraanga bu ne tenez-vous bien mu nekk koo xamante ni dëkk na Kër Thiat ak Kaolack pendant deux ans mu nekk koo xamante ni dëkk na Kër Tantay Thiat ici à Thiaroye Azur pendant un an mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla à mon insu il se permettait d'aller à Kaolack seeti gi sama yaay yendu fa des fois même fanaan fa suy ñibbi jël xaalis sax jox ko ne ko yaay booy sama ñaan laa jël si woon yow yaay sama sëriñ sama gaañ yi kii mooy ceer pour ngeen xam li ñu seq ak moom wala fi ñu jaar ak moom kon ku mel noonu su fekkee du un an vingt ans du cinq la nekk nag ca gannaaw ceer ba ñu war a mën a toog ci otom pour mu enregistrer ma loolu lu ñuy dugg la peut-être après ci poursuite dossier bi li tax ma ne damay def vidéo su fekkonte ni yave pa transaction d'argent du ma ci yëy yàbbi mais da ngeen gis ci début vidéo bi mu am une transaction d'argent transaction d'argent boobu li ko waral du lenn lu dul ñëpp xam nañ ma ci samay activité à part mon métier d'artiste damay bay damay jaay oto je suis dans l'élevage ceer moomu ñu seq mbirum jaay oto mu gis sama benn oto mu bëgg ko mais malheureusement tombé wuñu d'accord ci prix bi ba keroog mu gis sama benn oto Hyundai Veloster j'ai les papiers avec moi mu ne ma finalement jaay ma bii sama jabar laa koy jëndal ma ne ko amul benn problème bii mën naa la ki defal xéwal ñu tombé d'accord ci cinq millions ah mu indil ma une avance de deux millions bi ma indilee avance su deux millions demaat tuuti 30 minutes woo ma ne ma dama fàtte suma kalpe sama carte ki la ne et je dois 500000 à quelqu'un maa ngi wàññeekuwaat nga abal ma mille bi ma ne ko d'accord mu ñëwaat ma jox ko mille bi garder les 1 million 500 film boobu ngeen di gis ci début bi bi ma toog. li nekk fële ñaata la ma ne ko un cinq mu ne ma muy ñaata ma ne ko quatre cinq mu des ñaata ma ne ko cinq cent mille donc vidéo bi leeral na boppam kon gis ngeen ko waaye juste que ni comme dafa indi woon jiixi jaaxa ci transaction da euh, xaalis bi il fallait vraiment dire à vous les sénégalais que ni transaction d'argent bi lii mooy li ko wundu lii mooy li ko waral pas autre chose waaye sa site pourri bi nga xamante ni moom moo dugal vidéo bi am lum ca dagg automatiquement dugal affaire bi ci waxtaanum visa bi nga xamante ni man ak sama xarit boobu seq nañ ko mu may demande une aide pour évacuer son enfant bu war a faju ji en France ah ay waay man de je pense que ni jàmbur sax dégg ngeen ni kilifa taxawu na ko assisté na ko ba keroog yàlla di ko defal jàmbam ci ay besoin kii n'a pas un ami boo xamante ni ñëw na solliciter la nga aider ko automatiquement sur la vidéo la même vidéo consul pour trouver un rendez d'urgence un rendez officiel d'urgence ah gars yi sama gars yi je pense que ni ku nekk ci njëndum visa wala njaayum visa tu vas pas appeler le consul et tu vas pas trouver un rendez avec le consul boo demee ci consul bi lan nga koy wax consul jaay ma visa seetaan leen vidéo bi seetaan ngeen ko ay borom xel ngeen amul fenn foo xamante ni man ak Thier wax nañ ci ay jaay ma visa jëndal ma visa et je pense que ni c'est trop sale benn site bu pourri taxaw xëy xaw ma lan la ci jublu pour faagaagal ay citoyens Thier nag bi nga xamante ni moom expliquer naa leen fi ñu jaar ak li ñu seq loolu lu ñuy lijjanti la avec la justice ca boobu ma gis ñu bind escroquerie trafic de visa gis même un jugement gis même que ni man dama am sa ay plainte sama doo man de yéen sénégalais fi ma toog di wax ak yéen amul benn police boo xamante ni woo na ma wala benn gendarmerie ne ma kilifa da nga fi am une plainte tu dois venir répondre ba fi may wax ak yéen dégguma ko yëguma ko amul ndax sequma ak benn sénégalais lu muy xëyee war ma mu na porter plainte site boobu jugé ma te man dew ma tribunal taxawuma devant le juge ba juge bi génne ay verdict di ma di di ma taxé de escroquerie ak de trafic de visa ah loolu sama gars yi c'est un site qui est habitué à ces faits képp koo xamante ni danga nga jub du ci dal site boobu gis nañ ni jug na pour def yu bon pour def yu tilim pour discréditer pour xëpp suñu der yu lu bon waaye bii paa nag ah duñ ci génnee noonu du yombee noonu dinañu ma wax ce site va me dire quand est-ce que j'ai été un escroc et ce site va me dire aussi quand est que j'ai trafiqué de visa s'agissant de visa li ma ci xam mooy sama groupe war a déposer pour une tournée ñu woo ma ne ma vous avez un dépôt demain à 11h ma jël suma passeport yóbbu ko ak les documents d' invitation fi festival bu ñu war a dem wala concert bu ñu war a dem présenté ko ñu jugé may ñu visa ñu dem suñu tournée ñibbi si waat ci jàmm ak damay wax nag vous les journalistes damay wax aussi la gendarmerie et la police allez faire des investigations. ndax man kilifa Landing Mbessane Seck mës naa taxaw ci benn ambassade ànd fa ak doomu aadama budul caat mi ma seqal liggéey wala gajaga wala zemaste suñu DJ wala suñu musicien yi ñuy àndal taxaw naan damay demander visa wala damay ñaan visa dem leen ngeen defi cette investigation parce que c'est très important il s'agit d'une accusation grave et les Sénégalais aussi ont besoin de savoir et de comprendre ñan ñoo nekk ci dëkk bi nekk ñoo xamante ni seen intention du lenn lu dul salteel ak tilimal deru des honnêtes citoyens may ñaan aussi no der dugg na fi génn fi ñu bàyyi noonu mu jàll mu autosaisiru je suis disponible je de ce pays maa ngi fi tukkiwuma daw ma fen et j'attends une convocation venant de la justice su pour le moment ñi nga xamante ni nag ñooy mes camarades de combat pour ne pas les gêner je mets en suspens mes activités dans le mouvement Y en a marre pour mettre leen à l'aise pour wan leen ni que ni li nga xamante ni nag mooy lu war a jëm ci mbirum justice tamit ah duñ na yàcc ni yasar on a consulté nos avocats on a parlé avec nos avocats ils vont ñu ngi ciy liggéey au moment où je vous parle et dinañ ci def li ñi ma woo ñëpp li ma leen di wax mooy j'ai pas besoin de passer dans un autre chemin pour expliquer lii nga xamante ni moo xew j'ai juste besoin de dire les choses telles qu'elles mooy li nga xamante ni mooy li ma fi wax sama gaañi leur est grave nañu bàyyiwaat suñu xel bu baax a baax a baax ci li nga xamante ni mooy xew Sénégal ñu ngi jub ñu ngi jëm ci 2024 ñu ngi jëm aussi ci ay élections locales je pense que ni le débat le plus intéressant ou le sujet le plus intéressant c'est de communiquer essayer d'inciter les jeunes pour que ñu dem inscrire sur les listes électorales pour préparer une bonne relève pour des élections aussi transparentes li nga xamante ni tey jii mooy le sujet ñu ngi jëm ci 2024 ah dañ fiy aaye troisième mandat su fekkente ni nag looloo tax je n' je accuse nag personne mais bu fekkente ni looloo tax ngeen bëgg a divertir les sénégalais man kilifa gisuma luy tee ba duma taxaw farouchement combattre li nga xamante ni mooy un troisième mandat venant de quiconque ndax lu ñu mayul sunu maam Abdoulaye Wade du ñu ko may keneen ku mu mën a doon fii ci réew mi su fekkente ni da ngeen bëgg a divertir les sénégalais. xamante ni aussi da ngeen a bëgg a bayone ou tilimal ou yàq deru ñi nga xamante ni dañu taxawal pour leeralal sénégalais yi seen yu bon yi ngeen nekk di def c'est peine perdue je suis prêt comme toujours vous pouvez tuer Kilifeu et je suis prêt pour y laisser mon nez mais vous aurez en face de vous plus de cinq millions de Kilifeu là cette jeunesse est éveillée maintenant cette jeunesse ne va pas être manipulée cette jeunesse ne va pas être bâillonnée cette jeunesse nous allons vous barrer la route donc bu fekkente ni kilifa mooy seen cible pour bu ngeen ko éliminer vous allez bâillonner ñu muccal ñu di jéggaluwaat sénégalais yi di remercier waat ñëpp ñi nga xamante ni de près ou de loin ils m'ont soutenu sur cette épreuve di encore remercier waat ñi nga xamante ni j'ai reçu votre message ci sama messenger ci sama Facebook ci sama Instagram ci sama jumtukaay yi may waxee yépp maa ngi leen di remercier et merci encore pour votre soutien Kilifeu est là et il ne va jamais trahir le combat je vous fais confiance faites-moi confiance jaa ngeen jëf je vous remercie yàlla na jàmm yàgg Sénégal